mu def pression enquêteurs yi ne leen gaaw leen pare dossier bi ñu defee PV bi PV d' enquête yónnee ko ko lii mu ngi ci rapport gendarmerie bi ma wax de moom moo delloo rapport bi capitaine Mbengue euh, commandant Mbengue ne ko changel rapport bi mu ne ko changel rapport bi ci ban anam ñaar anam benn ñaari anam yu garaaw a garaw bu ci njëkk mooy parti rapport yëpp parti rapport initial bi nga xam ne yëpp c'était à décharge pour man mooy parti rapport yi nga xam ne dafa doon fësal ni lii mënul am moom la ci PV gendarmerie moom la ñu def nii souligner ko en jaune ba pare ne parti retranché dans le PV modifié du 9 2 2011 et ayant fuité mooy parti PV bi nekk ci dossier bi nga xam ne Bassirou Gueye moom la dugal ci dossier fi nga xam ne enquêteurs yi commandant capicole capitaine Touré ak capitaine Diouk fi ñu bind ne am na loo xam ne mënul ànd ak dossier siif ndax ku ñuy siif yow yaay organiser siif bi programmer ko xool état bi ka nga nekkaloon ci biir nga ne ko génnal yow yaa ko ne génnal kenn newul di génnal loolu tey na xel xel mënul nangu nit nit mun nañ ko siif ci anam bi ñaareel bi ku ne man dañ maa yónnee SMS boo xam ne mun na compromettre waa ji ñu ne la ana SMS bi nga ne leen effacé naa ko preuve boo xam ne mun na dugal nit ñu yónnee la ko nga ne effacé naa ko ñetteel bi ñi mu àndaloon ñu d'accord ni ñoom ay fani fan ñi ngi taxaw ci bunt institut bi di di géte di xaar Ousmane Sonko ñëw ak ñi ko fa jël si loolu yépp ñu Serigne Bassirou Gueye ne génne leen ko ci PV bi parce que baaxul day disculper day wane ni lii mënul am procureur de la république buy def loolu faute très très grave la parce que procureur de la république amul droit intervenir ci PV bi moom mooy le maître de poursuites c'est vrai mais enquête bi gendarme yi ñu ko dénk ñoo am autonomie parce que ñoom rek ñoo posé question ñoo dem jëli les ñoom rek ñoo war a mën a def seen PV kenn du modifier PV même procureur araam na ci moom mu modifier PV waaye sëñ Bassirou Gueye yemul ci loolu de PV bi nga xam ne moom la enquêteurs yi def PV boobu moo nekk nii quatre pages quatre pages quelques annexes parmi lesquelles certificat médical bi nga xam ne dàq na lépp ak audition yi loolu la woon Serigne Bassirou Gueye ne il faut ma charger dossier bi lan la def dafa dem dugg ci ay site internet dem jël ay photo yu bon gis ngeen photo yi photo yi ngeen gis nii dem jël ay jigéen yu summeeku Serigne Bassirou Gueye dem jël ay jigéen yu simmeeku daal koy dugal ci PV bi ne institut ba moom moo doon def annonce yooyu loolu foo la mais c'est extraordinaire PV gendarmerie bi wane na ni lii musul bokk ci rapport bi waaye li gën a neex samay avocat dañu ne woon juge d'instruction bi na def réquisition si police cybercriminalité xool ndax yii parce que am na ay numéro téléphone am adresse Facebook ndax am na rapport ak institut ba bi réquisition yi génnee lu ñu wax amul benn rapport jegewul sax procureur buy def loolu pour charger quelqu'un parce que lim ci doon ut te noonu lañ ko waxee ci PV bi noonu la ko capitaine Touré waxee ci témoignage am li mu doon ut mooy fexe ba ndaw see ñuy wax Ndeye Khady Ndiaye nga xam ne lu ne teg na ko ko tuuti mu rey doomam dañoo naroon assassiné doomam ñu fexe ba gëmloo nit ñi ni moom ab proxénète la da doon jaay ay jigéen mun a jaare foofu pour atteindre ma man lii dama ko wax le juge d'instruction daal koy génneel des preuves teg jox ko rapport bi nga xam ne lu du lu ñuy laam-laame moo tax ci fan yi fii leen lundi bu soobee yàlla dinaa déposer une plainte devant la chambre criminelle de la cour suprême ak devant ligage contre Serigne Bassirou Gueye parce que Serigne Bassirou Gueye ab criminel la tappalem yi mu tappale moo jural Sénégal fukki bakkan ak ñeent ci ay complot yoo xam ne procureur bokk bokk na ci ñu ko sumb ñaareel bi mooy lu mu doon def yëpp nag commandant Abdou Mbengue la ko doon def loo parce que bi enquête bi paree ba capitaine Touré ak capitaine jóg di ko doon jàppale joxe commandant Mbengue daleen jénne génne ci mbir mi verrouillé te moom nangu na ko ci PV gendarmerie bi enquête bi moom nangu na ni moom la bassiru Gueye ne changé mbir yi mu changé ko li leen di wax ni noir sur blanc la de moom nangu na loolu moo tax ma ne boole naa ko ci parce qu'il est complice parce que nit ak nu mu ci demee ak loo bëgg bëgg carrière buñ la joxee ay instruction yoo xam ne dëppoowul ak yoon da ko war a bañ ñetteel bi mooy général Moussa Fall général Moussa Fall ay fani fan balaa bés bi ñu ne moom la mbir yi am ba ñuy accusé quinze jours avant général Moussa Fall dafa yebal ay nit dafa yebal benn MDL chef te loolu ñu ci rapport bi te ñaari gendarme confirmé nañ ko yebal MDL chef woo directement commandant Abdou Mbengue ñu tëb toute la hiérarchie de la brigade de recherche daal di woo benn MDL chef ne ko demal bërëb sàngam boo demee nanga nga bërëb bi parce que dañ wax ni diw dafa tëj benn xale boo xam ne mineur la di ko torturer moom commandant Moussa kon moom bokk na ci ñi nga xam ne du jiitu loolu ak gradam bi mu nekk ak position bi mu nekk teg na benn complot pour de dafay fexe nu ngi ootale Ousmane Sonko pour jàpp ko te lii nekk na ci rapport bi waaye man mi di wax a yéen indel chef boobu ñëw na ba ci man ne ma man mii lañu ñu yebaloon foofu man mii la ñu yebaloon foofu